ngir ngay jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma Production da ngay beus fi ñu bind sabonné suis noppé ci bi Production la scène du mouridisme ñi nga xam ne nag dañoo am tawfeex dëgg dëgg dëgg dëgg sëriñ bi eh, ñoo nekk ànd xasida yi xoolaan di womal xasida yi ñoom ñu nekk ci biir eh, li ñuy womat kon da ngeen a am tawfeex yàlla leen ko defal ci sëriñ bi defal leen ko ci xasida yi kon da ngeen a am tawfeex bokk itam ci pàggu tefu sëriñ Tuubaa pàggu pàggu tefu sëriñ Tuubaa sikkal yi moo jiitu xam naa yaatu na sax ba kenn mënu koo xiyaas waaye xasida yi xasida yi mooy sëriñ bi xasida yi mooy sëriñ bi digg ma borom digg ma yonent ñu ngi ko tegtal digg ma boppam digg ma gaa yu baax yépp lépp ngi ci xasida yi lépp ngi ci xasida yi kon amul lu ñu leen di mën a wax wala ñu dolli wala dara waaye ngoog yoon baa ngoog cër baa ngoog da ngeen am cër bu rëy rëy rëy زعمت المريرة يلا يلا بول أم جن أم توفيق ما بول فين توا أم جن أم أم توفيق يلا خير اللي تخدي كون دعين أم تربوري أنا دوك بين خان خانين جو تعلم وارك جو لي دولي لما شيء دولي لك ما ده قصدي لما كوا خان أنا بس واكر سي حمزة أم أم أنا بعد بعد يوم جوا خان لما كوا قصدي لما جار دم جانجي أم خم خم دولة دسمك di liggéey di liggéey xasida yi loolu da ko jar dafa jaroon ku ñu ku ñuy daal baasin ñu fas àll mu am xam-xam ba am tawféex na delluwaat ci xasida yi def ko liggéeyam loolu man mooy sama mébét ci noonu ndax xasida yi mooy mooy sëriñ bi te taw li ma am ci sëriñ yooyu leen ko képp koo xam ne bokkoon bokkoon nañ ko sëriñ bi xolam sëñ Tuubaa nekk ci rawatina ci nag sëñ Tuubaa di rawatina ci nag mu mu nekk ci biir xasida yi def ab liggéey muy xasida yi loolu xéwal la goo xam ne amul fenn fu mu yem ndax texeeg tey ëllëg la lay indi texeeg tey ak ëllëg la lay indi waaw defaru biir ak bitti la lay indi waaw waaw noonu noonu la demee noonu la demee waaw noonu la demee kon. jël leen jël na dolli dara mu ngoog ci cër bu réy bi mu nga noonu nekk leen ci te fas yéene fas yéene ko sax dàkk ci sàmmonteeg moom waaw lépp ngi ci biir waaw lépp ngi ci biir waaw tax tey ak ëllëg mi ngi ci biir mu ci biir mucc tey ak ëllëg mi ngi ci biir waaw kon mu ngoog liggéey bu baa ngoog liggéey bu bari bu bari njëriñ te njëriñ la amul fu mu yem liggéey bu rëy xéwal xéwal yi kenn xamul mu yem ah loolu de laa leen mën a dogal dolli ci xasida yi <laughs> waaye nag mu doon des nag cant gi maa ngi leen cant cant gu rëy rëy rëy rëy sant cant gu rëy rëy rëy goo xam ne sama woon naa ko tibb sama xel laa ko niite laa ko gisee maa ngi leen sant cant gu rëy rëy mun mu ko wax sama lan waaw ndax li ngeen nekk li ngeen nekk mooy sama mbébét mooy sama mébét ci mboolem ku ku ku kooku sëñ Tuubaa kon ma ñoom maa ngi leen di sant cant gu rëy rëy rëy di gën a ñaan nag rek li nu am gën a am tawfeex sëñ Tuubaa sama ñaan yëpp mooy loolu mooy jëkk moo yàlla ñu gën a am tawfeex sëñ Tuubaa tawfeex sëñ Tuubaa dina ko dolli muy wéy ba ci kanam ba ci kanam mu nekk ci kanam yonent bi ci ci ci wuy si suñu borom ba waaw foofu laa ko àpp waaw kon jërë ngeen jëf jëru ma di ci dolli dara ndax <laughs> waaw su soo ko seet na buy yàlla seet na waaw noonu nag li mu wax lépp noonu ko ci fasal mu yàgg fi lool tey tey tey yëg dëw liggéey sëriñ Tuubaa la leen gënal lépp day na ñaan dañ ko def butéel mbaa wala dara di wax wala dara daal di ko def mais daal la ko xam ñaan yi loolu nga ñu jëlee yëpp dégg leen dégg ko am na parce que bu dee yaakaar suñu ko rafet na ko suñu jëlee na ñëpp tàllal mu ñaan na ñëpp tàllal ñu may ko yoon wi maa gën a liggéey bi seex na nii la آمين آمين آمين آمين آمين بنيان آمين آمين

Yeah. ngir ngay vidéo yi am solo yi production da ngay beus s'abonner production la scène du mouridisme